xam nga loolu ñun ñëpp bu noppee seetaan góor jigéen nii te ci guddi bi nga xamee ni ñun ñu ngi nekkoon place de l'Obélisque di xeex ak góor jigéen boobu góor jigéen yaa ngi ci réew mi di ko lëmbe ndax man yor naa ci ay preuve yu leer yoo xamee ni bi ma ko dugalee keroog YouTube dañ ko censuré ci saa si xamal ma ne ma lii duñu ko permettre waaw léegi nag bu fekkee ni góor jigéen yi moom dañuy lëmb réew mi te xam bi nu xam ne ñoom boo yoree seeni vidéo mënoo ko passé fenn du Facebook du Instagram du Twitter du YouTube du fenn foo xam ne dafay nangoo jàll donc am nañu beneen plateforme beneen système bu ñu mën a jàllee message boo xamee ni ñëpp dinañ ko mën a dégg bu baax a baax a baax mooy defar vidéo ba vidéo bi jekk ni ma ko defee man sànni ko samay contact lima am ci whatsapp pour lancer le message ni góor jigéen yaa ngi diggu ndaxaaru bi toog te li gën a yéeme léegi phénomène bi nga xamné mom la góor jigéen xewal léegi yaakaar naa ñi am sama contact gis nañ ñu leen ko envoyer daanaka dafa jéggi dayoo li ñu njëkk a def moy dem Maroc wala Algérie wala Turquie changé ay beñek Turquie la noy saxalé seen ween yi ci lañ leen di opéré ba seen taat yi ay ans lépp loo xam dafa jëm ci soppi sa bind ak sa forme dañuy dem ba tirku ñoom fa lañ ko defaree doog ñëw ci biir réew mi fan yee passé waxoon na ci am na benn waay bu ne Angleterre boo xam ne na ma ay dossier waxoon na ko plus de quarante quelque góor jigéen ne seen yépp ay turu jurit lañu ci ni ma ko mën ci baat bi ndax ak ay musulman la leen ñoom ñoom ñëpp seen tur yi loola te ñi ëpp ci ñoom waxuma nag ne ay moodu moodu lañ moom mais bitim réew en général la ñuy jëlee boobu jikko indi ko ci réew mi tali gën a day waar dinaa ko wax fii ngeen xam góor jigéen boo gis senegal mu am doole di fi dox guddeeg bëccëg xamal ne ku nekkul góor jigéen ma nga ca ginnaawam di ko dunguru nekk surgam parce que góor jigéen ñi ñi ñuy yónni mooy seen i altoppe yu ñuy yónni ñoom altoppe yooyu. ñoom du ñu ay góor jigéen ci habillement mais ñoom ñooy imbécile yi nga xamee ni ñoom la góor jigéen di liggéeyandoo ensemble moom la ñuy yónnee ci restaurant yi ñoom la ñu yónnee ci bërëb yu bari ñoo leen doxal seen course même ba ci taxi kalandoo yi nga xam ni moom la góor jigéen ñi jël taxi maan yi sëfër yooyu ci boppam ci boppam ñoom ay complice lañu ci ñi nga xam ne mooy ñoom ñooy góor jigéen yooyu ndax am na taxi maan ba ma ci joto waxtaanal mu xamal ma ne moom ci boppam amoon na ay client góor jigéen yoo xam ni ay clientam la ñu woon chaque guddi mu leen daan jël di leen déplacer leen yóbbu ci ay côté mais ñun bu fekkee Sénégal dañuy combattre góor jigéen ak ñeneen ñu nekk suñu biir tudd ay al topp ay coggu mànd coggu góor jigéen kon xam ngeen ne loolu am na beneen phénomène boo xam ne du fi gaaw a jóge te dégg naa fa ne passé xalaat TV di wax ni ñom goor jigéen ni dañu am ñom ay aide sociale ci walu médical ci walu santé ci bépp hôpital buñ dem ci réew mi duna fay dañ leen di faj gratuit parce que lutax moy lebi yu mag yi nga xamé ni ñom ñoo leen ngeen ba tan bitim réew dañ leen defal ay façon këyit yo xamné pour nga dem bitim bo nekké goor jigéen pour nga dem Europe da yomb ci yow parce que da ngay wër dem ambassade né waaw goor jigéen la dañ ma xadal Sénégal dama bëgg a réew mi bind yooyu nga def demande nag moo waral seen lobby yooyu mën laa di fii di la yóbbu bitim réew bu lépp bitim ñoo la fay liggéey bu baax utal bu baax dëkkal la même boo bëggee sax di marié ak beneen góor ñoom ñoo accompagner jox la ay moyens fexe ba mariage boobu am ci seen boobu réew boobu. loolu benn la ci ñaari moom mooy góor jigéen bi nga xam ne dafa nekk Sénégal nga xam ne dana koy dimbali ñoom seen lobby yooyu daanaka moom lépp loo xam ni. daf koy daf koy taxaw rek loolu daf koy mën a def ni nga xam ni noonu la waree bu baax a baax mu nekk acte bu garaaw boo xam ne actuellement Sénégal gars yi bari ay góor jigéen ñu bari ci ñoom ñu bari ay yor naa ci nekk ay dossiers yoo xam ne dinaa ci mus a wax un un jour fan yi du yàgg rek nanu ma xaar sama chaîne bi dinaa mus a génnee quarante et góor jigéen yu ma xam écrit waxuma ay fe écrit bind. bi ma jotee Angleterre loo xam ne man maa ko jot mais amé sama loxo kenn joxuma ko kon donc mu nekk loo xam ni phénomène la lu am la Sénégal muy xeetu góor jigéen ñu ngi ci ay cité yu bari nekk fii ci réew mi dinaa ci revenir waat nekk ak beneen waxtaan bu gën a yaatu bi ni mel mais bëggul cee firndeel ne ni am na ndax am na ñaari vidéo yu ma ci yor yoo xam ci réew mi laa ko jëlee ay góor jigéen tikki lañu boo leen gisee doo leen xàmmee nañu mel dafa ëpp mais d'ici deux jours ci kanam dinaa génne beneen vidéo bu gën a am solo bu gën a leer li ma leen di wax fuuf parce que tout le temps ñu gis ñoo xam dañuy menacer nit ñi di leen indil ay nangam ak nangam man bokk ma ci xeet ni ñooñu feeg deux jours dinaa ci wax lu ma ci war a wax lu yéeme te doy waar lool bu